mbokk internet yi ma ngi leen di nuyu ci di rafetlu bu baax a baax ni ngeen di ande sa suné ak programme 5 TV ma ñëwaat ak yeen ci décortique bi ñu leen di defal série bi di impact tay nak mu yem ak épisode 22 bi ñu door ko ak séquence bu njëkk bi ñu gis ni Issa ak Moussa Diouf dal di nañu tase ci nonu Issa expliquer ko li tax mu dal di génn té moy rek dafa wara a setal ci nonu nak Issa xamal nako niko mom japp nañ na rek dina libre manam dinañu ko bayyi mu génn ci kasso bi ndax Diallo xam ni moom la ñu jàpp ni moo rey Franck Gradel dina avoué ni moom moo ko rey mu mel ni kon ki nga xam ni moo di Issa Espoir la àndal jamono jii ndax jàpp na ni mission bi nga xam ni moom moo taxoon ñu génne ko ci prison bi matal na ko te mooy rek fexe ba euh, dajale ay preuve yoo xam ni moom moo koy euh, setal ndax ki nga xam ni moo di euh, Fallou moom si boppam dafa jàpp ni moom it moom moo rey Franck ba tax nag mu ni dina daal di setal ki nga xam ni moo di Issa Diouf ñu jàll ci Fallou Euh, moom nag donte nangu na ni dina avoué euh, waaye nag jamono ji ci dilem la nekk ndax benn mu ngi ragal tëdd prison ndax li ko commissaire Ndim di tantam lim ko yàgg di wax te mooy rek bis bu avoué ni moom moo rey Frank euh, mën nañu ko cee tëj giiru waaye li ci gën a sedd rek mooy dix ans de prison moom gën ngaa gàtt dina ko tëdd loolu nag def ko dilem waaye nag leneen mooy ki nga xam ni moo di Issa Diouf dani ko boo nanguwul avoué dinaa la rey mu mel ni jamono ji fàllu ñaari choix moom la am benn bi mooy mu dee benen bi moy mu teud kasso lol nak tax rek jamono je xelam euh, dalul euh, muy nek ci rek euh, di xalat ba tax nak du yomb ci mom ben yoon ñu jall ci isa mom nak dafa triste dafa am lu ko metti gannaaw nak bi nga xamé ni ci mu gëna bëgg di Aminata gis nako ak Prince nekkon ex copain wam lol nak lañu naan ku bëgg fiir te it yombul goor di gis ki nga xamni mom lay bëggantel mu nek ak goor rawat na nak ci situation yi nak nga xamni modi Aminata masul won euh, isa lu ni mel euh, te yi nak jamono ji nga xamni isa dafa nek ci loxol yoon Issa yaakaaroon nañ rek Aminata dina def leneen luddul di nek ak euh, benen goor waye nak liñu naan rek tey dafa dañu koy sentu ci ndox waye ci nit le gën tep tep mom mo gën yureet kon ki nga xamni modi isa di warna war na war patienté ba xam rek li nga xamni mom la gis nan la démé ndax rek limu nek ak Aminata warna na xam rek kan moy vrai Aminata ak li nga xamni mom la saña def jàll ci commissaire euh, moom nag du bàyyi euh, dafa mel ni rek euh, moom li ñu naan bu xasee ba màtt dara faaw mu dagg ba tax nag jamono ji gisul dara rek lu dul trouver benn solution boo xam ni rek ki nga xam ni moo di Issa Diouf dina wëy rek ci des ci kaso bi ndax moom xam na ni bés bu ki nga xamee ni moo di fàllu fi avoué moom rek mën na cee feeñ ndax complot bi yëpp moom moo ko laal batax tax nag nit foo toll rek war nga di def lu baax boo bëggee rek di dëkk ak xel mu dal ndax lu bon moom boo ko defee sa xel du mos a dal ndax à chaque fois rek da ngay jàpp ni dina la fekk si ñu jàll ci Maïk moom nag réussir na ba récupérer terrain bi nga xam ni euh, moom la euh, Mélanie Gradel euh, bëggoon a jot ba tax nag mu ñëw di chanteloo yaayam waaye nag ki nga xam ni moo di Mélanie Gradel nekk na koo xam ni yomb la am waaye nag benn point faible la am te mooy ki nga xam ni moo di Franck ndax ni mu sàgganee maanaam ni nga xame présent wu ko ci vie wu Franck ba Franck daal di faatu lépp nag la bëgg dabuwaat ci bi nga xamee ni Franck dëddu na ba tax nag lépp loo xam ni day laale ak Frank rek da ciy xaw a sensible ba tax mu daal di nangu euh, ngir rek cédé ki nga xam ni moo di maayeg 30 pour cent ci hôtel bi euh, ngir rek mën a jot ci suuf soosu nga xam ni da koo bëgg a tabax ngir mémoire euh, Frank ñu jàll ci maayeg moom nag dafa tiit jamono ji ndax nervi bi jógu rek ci di ko sonal ak di ko wax rek ngir mu jàppale ko mu daal di génn ci dëkk bi mu mel ni kon victoire bi mu am te mooy rek pour cent yi nga xam ni am na ko ci otel bi maanaam léegi actionnaire la fa fa euh, trente euh, loolu nag mënu koo feete ndax rek euh, nervi bi ba tax nag li ma waxoon sànq rek moom mooy dellu si te mooy def lu baax rek moom moo noppal boroomam ndax lu baax boo ko defee ci xel mu dal ngay dund saa su ne tey jii nag bu fekkoon ki nga xam ni moo di Mayik laalewul benn yoon ci manifestation boobule ni ko doon tey jii moo ngi feetu victoire am ndax rek actionnaire ci hôtel bi moom moo gën a rëy yaakaar naa li nga xam ni moo di poste PDG bi nga xam ni dañu ko ci destitué mu mel ni kon nit saa war na rek di def lu baax baax te it nag di jubal di doxal yoon euh, su bëggee rek noppale ko ci àddunaam ñu jàll ci Jessica euh, moom nag ba tey tàyyiwul benn yoon euh, te it nag li ko yitteel mooy daal réconcilier waat yaayam ak papaam ndax xam na ni ñoom ñaar ku ci nekk rek bëgg nga sa morom te ñu nekk rek moom mooy jàmmi ku ci nekk ba tax nag mu ngi def lépp lu mu mën ngir daal di leen di jubale gannaaw nag bi mu waxtaanee ak papaam tey nag ñëw na ngir waxtaan ak yaayam ngir jéem ko convaincre ngir mu def effort comme daal di récupérer papaam ndax xamal na ko ni effort bi ngay def ci sa business business ba muy dox boo ko defee ci sama euh, papa di nga mën a récupérer di nga ko mën a récupérer euh, mu mel ni kon euh, Jessica moom woolu na yaayam tey nag xam na ni su defee tuuti effort rek dina jotaat papaam ñu jàll ci mère Fatima moom nag jamono ji ndeysaan xol ba neexul ndax rek doomam di Issa Diouf tey jii la ñu ko la ñu war a joxe verdict bi maanaam tey jii la ñuy xam ndax Issa day tëdd prison wala day génn muy nag bés boo xam ni bës bu rëy la ba tax mère Fatima mënul nekk si jàmm tey nag xelam nag dañu koy comprendre ndax xolu yaay ci doomam à fois dañu koy wax euh, xolu yaay ci doom dafa nekk loo xam ni yàlla mi ko def rek moom moo ko xam euh, ba tax nag lu métti loo xam ni dal na sa doom yow yaay ji euh, dangay dootoo am jàmm da ngay nekk ci fitna dañuy wax sax naan doom bu feebaree yaayam feebar waaye itam doom bu amee malheur yaayam du nekk ci jàmm ñu jàll ci fàllu moom nag gannaaw bi nga xamee ni xalaat na ba sonn ci entre de ak tëdd prison mujjee naa nag soisir dee ba tax mu daal di xaru mu ngi wëy di xamal ki nga xam ni moo di Issa ne ko Fall rayul Frank waaye benn nervi moom moo rey Frank li tax nag kon Fallu jàpp ni moom moo rey Frank mooy dafa génnee woon pistolet di tiire ba tax na nag bi nga xamee ni am na ko ci gaañu moom jàpp na ni rek moom moo tiire ndax ba muy tiire àndutoon ak xelam daloon doon tiire partout ak ki nga xam ni moo di Bamba moom moo gis lépp te xam na ni nervi bi nga xam ni moom la Frank yónni woon ci manifestation bi moom moo daal di rey na ci bakkanam ki nga xam ni moo di Issa Diouf itam condamné nañu ko muy kon lu métti loo xam ni dal na si seen kaw ñoom ñaar ñëpp ndax rek ñoo ngi dund injustice ndax ñoom ñaar ñëpp ku ci nekk li tax rek malheur bi arrivé la defoo ca dara ndax fàllu rayul waaye tey dee na ngir rëcc prison ki nga xam ni moo di Issa Diouf itam tëj nañu ko ñu jàll ci beneen séquence ñu gis ni fàllu avant moo gaañu bind na benn lettre ngir rek setal ki nga xam ni moo di Issa waaye itam avoué di moom moo rey Frank kon fàllu dee na te ba tey rek xamul Frank ndax jàpp na rek ci xelam ne moom moo ko rey waaye nag gis nañu ni lettre boobu ki xam ni moo di commissaire Ndim moom moo ko yor commissaire Ndim nag peut-être euh, tey euh, li nga xam ni moo di lettre fàllu bi dina ko convaincre ba mu daal soppi doxalin te daal yóbbu euh, lettre boobu ci loxol yoon gis nga xam ni moo di Issa fa mën a seet ba faaw waaye nag ku xam commissaire Ndim xam ni xol bi moo raw xeer te lépp loo xam ni rek mën na ko def ba daal di génn ci mbir mi dina ko def kon nag yaakaaruma ni dina yóbbu lettre boobu fa mu ko war a yóbbu ñu jàll ci procureur moom nag moo commissaire Ndim euh, ñoom ñoo yem te leen rek moo leen soxal euh, te mooy nu ñu fexee ba daal di set ci mbir mi ba tax mu daal di def déclaration daal di woo waa presse daal di woo presse bi def conférence de presse xamal leen ni Issa Diouf dafa rëcc prison maanaam nekkul ci benn kaso euh, ci réew mi loolu lépp nag ngir bëgg rek gën a taqal Issa Diouf tey nag bëgg mu gën a tëdd ci prison bi ak ñoom ñu ci génnee loolu rek moom moo ko waral ñu jeexal ak beneen séquence bu mujj bi ñu gis ni Bamba moom nag dafa lëkkaloo ak Issa ngir daal di koy jàppale ba mu daal di génn ci prison bi ci noonu nag li mu njëkk def mooy daal dina koy euh, jox ay preuve yuy wane ni ki nga xam ni moo di Fallou reyula Franck waaye nervi bi nga xam ni moom moo demoon euh, saboté manifestation bi moom moo ko rey mu mel ni kon lëkkaloo Bamba ak ki nga xam ni moo di Issa moo nar a leeral mbir mi yépp nu mu demee ba tax rekk nañu leen topp ba xam fu wàññi leen di mu ki gëtëm waaye laata boobu wëyal leen di abonné ci ci saa si jërë ngeen jëf et à incha allah.